mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu daleen ak jàmm ci xibaar digg bëccëg gi ñu door kook li ci gën a fës mu bokk ci CREI yi ñi nga xam ne nii i dossier jëmale ko nag ci yenn ci ay kilifa ci mim réew maître Madické Niang si la bokk staffam nag daal di ci yëkkati ay kàddoom ne daal li nga xam ne moo di l'enquête préliminaire yi kon ko ba noppi fu mu ne nii nag li nga xam ne nii moom la ñu sëgg du lenn lu dul jëm koo taxal ak di ko yàqal ñu wax ca Bari Cissé yàpp dëkk boo xamante ni mu ngi commune bu Dodji ca fu mu nekk ndax askan wi jafe-jafe dëgg lañuy ñuy tax nag ba ñoom daal daal nañu génn si mbedd mi takk ay morso yu xonq yuuxu ba ñëpp dégg leen ñu wax nag ci askan wi nga xamante ni ñu nga ca dëkk bi nga xam ne ni mu nga ca Jokomol ak bu ki Moulomp askan wa nag lañu bëgg mooy ñu bàyyi ñenn ci seeni ay nit ñeent lañu nekk co communauté bu village boobee kon ñoom juróom-ñetti weer a ngi nii ñu ngi ci euh, kaso bi kon dañu leen a teg loxo askan woowee nag daan nañu jàmmaarloo ak takk der yi ngir ñu bàyyi seen i ay ñoñ yooyu nañ leen teewlu ci biir jotaayu xabaar yi toftal ci bi ti réew li ci yéenekaay yi lañ fas yéene yëkkati jotaay bi ñaanalante léegi léegi ñu dugg ak yéen ci faram fàccee gi décret yi fu mu toll nii eh, daal nañu ubbeeti dossier yenn ci ay eh, kon kilifa yi nga xamante nii eh, tudd nañu leen ci bokk ci ki nga xam ne ni moo di maître Madické Niang directeur cabinet nag di ki nga xam ne moom mooy Mamadou Ndiaye daal di ci yëkkati kàddu xam na ne daal mbir yi teguñu ko fenn ndax nag jotoon nañu daal di noppi ci li nga xam ne nii moo di l'enquête bi fu mu nekk ni lu ci fasaat rek du leen lu jéem a yàqal ki nga xam ne nii moo di maître Madické Niang kii di Mamadou Ndiaye moom la ñuy lu jokkoon ak téléphone ak Moussa Sène lu yëngu li ko yëngale ko ëpp doole en fait boo gisee da ngay yaakaar lu anodin la mais en réalité booy jàngat da nga xam ne li nga xam ne moo leen jaaxal mooy métier yàlla dafa dogal mu tàmbali di jël doole ci am politique Sénégal li ko tàmbalee moom mooy moo njëkk a gis ne PDS war na siggi mu njëkk a siggi bëgg a siggil PDS ñi ko xamuloon léegi ñoom xam nañ ñu ngi doog gis ne euh, jotoon na booba ñoom ñëpp ñu ànd siggil PDS léegi tamit loolu nag boole ci mu def campagne électorale yoon boo xam ne war na Sénégalais yi amaloon ci mu liggéey homme d'état mu teg ci xalif général defal ko benn témoignage boo xam ne kenn mësu ko loolu moom moo ko njëkk am donc loolu yëpp nag dafa indiwaat ci moom ak moo xam ne muy homme politique boo xam ne mu yéeg loolu la ko sax une joxe woon médaille yu politique de l'année kon loolu yëpp moo waral ñu koy jéem a ñu koy jéem a nasaxal mais boo seetee ne Mimi mi nga xam ne moo jiite woon ministère la justice moo njëkk a wax ne Madické Niang fut un client infructueux religieux de la CREI maanaam kooku CREI lañ bët na ay mbiram waaye gisuñu dara ñu teg ci nag ne ministre bi ko kii moom gën a sax sori di di kaba dafa ne sax ñun de amuñu benn dossier ci CREI boo xam ne moo concerné Madické Niang kon loolu xam nga ne moom mooy di dugalaat Madické ci ay affaire u CREI waxu picc la mais alaka liggéey yëpp moom mooy li ñu bëgg dëgg-dëgg moom mooy aussi fexe ba nit ñi fàtte mbirum pétrole ndax pétrole bi dafa di coow euh, a Sénégalais yi mën a xool feneen bàyyi mbiru pétrole bi ndax mbiru pétrole bi neexul raxas comme mënuñu koo raxas nañ fexe kenn bu ko xoole faagaagal moom ñoom mënuñu ko waaye nag néewal doole lañ ci jublu maanaam dañu ne daal kii daal ni muy doxe nii buñ ko seetaanee muy évoluer ba local muy évoluer ba législative ba présidentielle deux mille vingt quatre dana jur luñ ñu dem ca département bu Linguère ab dëkk bu ñu naan Bari Cissé mu nga fa dara ba dara booloo jeex amu fa tax nag ba askan wi eh, daal nañu jóg wàcc si mbedd mi takk seen ay morso yu xonq yuuxu ba ñëpp dégg leen Oumar Kayre école boo xamante ni daanaka ay banti garab nañ ko clôturer ca wet ga ab groupe de manifestants ñenn ñu yore ay pancarte ñu ci des ay lampe pétrole ca geneen wet ga ngay gis ñu teg fa ay gënn ñoo ngi nag Bari Cissé mu di dëkk boo xamante ni mi ngi bokk ci commune bu Dooji digganteem ak Linguère toll ci juróom-ñaari kilomètre lii ñu jote lim rek di wane jafe-jafe yi nga xam ne askan ba fa dëkkee ñoo ngi koy dund saay su nekk waral ñu organiser benn marche ngir ñu dégg leen lëndëm gii moom amatut fenn senegal moom lii moom fii rek la am amatut fenn ñun dee nañ la sonn nañ xam nga ne benn lamp xale bi bëgg cee jàng yaay bëgg cee defar reer xam nga ne loolu amatul fenn ñun dee nañ loolu dafa xew yi amatul bi ci topp mooy suñu école bii dañoo bëgg ku ñu ko collectirel toilettes yi gis nga ko mu ngi noonu gis ngeen ku ñu ko gis a seet bopp daanu na ab case de santé bokk na tamit ci li nga xam ne ñoom manifestant yi ñoo ngi koy sàkku boo dëkkee ci dëkk bii bala ngay faju faaw nga dem ba Linguère yenn saay sax nga mën caa ñàkk sa bakkan ay jigéen ko ëmb bu ndaw nga sëf ko ci saret te daw ak moom ba lingeer ëmb bu yàqu xaj na ci. ndox ma bariwul ca baari Cissé loolu ñëw dolleeku ca dugg fa daal di jafe lool ndax ñàkk yoon bu baax. L'axe reliant ce village à Linguère est très chaotique. Nous réclamons une piste praticable. Aucun branchement social n'a été fait depuis 2009. Que les autorités nous aident. mer lool bay futt askanu Bari Cissé di woo autorité étatique yi ñu gestu leen. président Macky nga dimbali ñu ngir yàlla lillahi wa rasuli may ñu courant. Nous appelons le président Macky à électrifier ce village. Concernant Ali Ndiaye, il connaît bien nos difficultés, mais il n'a rien fait pour nous. Il n'a qu'à nous aider, sinon nous allons nous tourner le dos. dañ koy ba ndax ñu duñ topp ku ñu amul njëriñ dañ koy ba Bari Cissé nag dëkk la boo xamante ni ñoo ngi ko sanc ci atum 1958 mi ngi bokk nag ci commune bu Dodji commune bi nag nekk tamit chef lieu d'arrondissement ba askan ba nga xam ne nag ñoo fa dëkkee ñuy gën a dundee moo di jaay bay ak càmm Oumar Kayre Louga Walfadjri Omar yeneen askan ngi nii tamit daal nañu ñaxtu ñu nga ca Jokomol ak commune bu Moulomp askan woowee nag ci taw bu yi nga xam ni moom moo taw rek ci alxames gi sa lañu daal di génn ñoom askan wi ci taw boobee daal di ñoom ñaxtu foofee ca Sikicoor la ñu bëgg daal moom mooy ñu daal di bàyyi seen ay ñoñ ñi nga xam ne nii teg nañu leen loxo juróom-ñetti weer a ngi nii ñu nga ca kaso ba Amady Khalil Diémé taw bu bëri bi taxul rek population yu Jikomal yi ak yu commune du du Mulomp ay dëkk yi nekk si département du Souy ñu mobiliser wu rek pour dox ñaxtu tey jii euh, pour rek exiger li nga xam ne loolu mooy libération seen ñooñ ñi nga xam ne jàppal nañ leen euh, si maison d'arrêt de correction bu Ziguinchor si conflit sur le foncier bi nga xam ne moo leen di opposé ak commune bu Oussouye. mooy otage yu euh, administration sénégalaise jàpp Euh, suñu suñu doom yi suñu pap yi suñu rak yi jàpp leen tëj leen si kaso depuis euh, huit mois loolu la ñu ñëw wax préfet pour ñu libérer leen immédiatement nous exigeons seen libération parce que ñooñu nuñ leen jàppee euh, jàppewu ñu leen si yoon jàppewu leen si dara nu demee noonu parce que ñun tey population moom kontaanuñu. bëriw nañu lool weesu nañu mille personnes ñi nga xam ñoo doon dox ñaxtu dox nañu lu weesu fukki kilomètres euh, si mairie bu mu lomp dem ba si euh, sous préfecture bu lu Loujawolof pour réclamer li nga xam ne loolu mooy justice ak équité si dossier boobule Honoré Manga moo yor seen kaddu. justice Sénégal dafa nar a tëddee jaaxaanaay comme administration tamit commandement territorial dañoo nar a tëddee jaaxaanaay jaaxaanaay pour régler problème population yi waaye justice bu xam ne bu demee ba far moom population yi li ñuy def mooy fifu rek te si fifu boobu la ñu nekk nii mais ñun du ñu fifu ak doole dañuy fifu ak xel moo tax ñu def ay conférence de presse ñu def tey marche pour wane suñu mécontentement wane suñu mer léegi lépp mu ngi si kawam jox nañ ko jox nañ ko mémorandum ñu ngi toog xaar bu demeewul bu bu ñu deful lu ñu bëgg ñun dinañu dem à une vitesse supérieure parce que mun nañ ko am na ñu xel boobu et te am nañu kattan boobu pour def ko te dina ñu wax dina ñu wax lu gën a garaaw parce que ñun xam nañu lu bëri bu ñu ko génnee fii yaakaar naa ne euh, département Oussouye bu moytuwul dina dina tas. jox nañu benn mémorandum euh, sous préfet bu Louga Wolof Abdoulaye Ndiaye. ay question la ñu posé si biir mémorandum bi dégg nañ ko bu baax dinañ ko jottali ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu kilifa bu ko defee ñoom it ñu def ci li nga xam ne mooy seen wàll maa ngi leen gërëm dina sant. ndax dox bi ngeen dox ci taw bi ngeen ko dox egsi fi ci taw bi waxtaan ak man ci taw bi nara dellu ci taw bi. population yi Komol yi nee nañu ñoom euh, du ñu taay rek dinañu continuer seen combat boobu si li nga xam ne loolu ñu considéré comme une tentative d'expropriation seen suuf bi euh, par une minorité bu commune bu Oussouye Ziguinchor Amady Khalilou Diémé pour la radio télévision Walfadjri. ñu dem ca jàmm gën Sicap Mbao askan wa nag fu mu nekk nii ñu ngay xuus gannaaw ba mu tawee li nga xam ne moo di euh, seen ay kër fees dell ak ndox tax nag ba fu mu nekk nii sàkku nañu ndimbal ci ñi nga xam ne nii ñoom ñooy Abdou Samad Diouf moom la ñuy teewlu ay kàddoom ak euh, Théodore Semedo. population bi actuellement nekk nañ ci njàqare population bi jaxasoo nañu population bi ñu commencé nañoo génn seen i kër ndax jaaxle ñun nag ñu ne loolu du ñu toog di ko seetaan état bi la ko war na ko def ca anam ba nga xam ne moom la ko war a defee parce que lii nit ñi di laaj seen droit la état bi dafa war a jël tenir en compte problème inondation commune Diamaguène Sicap Mbao parce que population bi sonn nañu population bi jaaxle nañu lii depuis 2005 population Diamaguène Sicap Mbao ñu ngi ci biir ndox mi. dafa jot nag tey ñu def ay canalisation comme nañ ko defee ginnaaw raay comme nañ ko defee yëmbal sud ak yëmbal nord parce que Diamaguène Sicap Mbao dafa bokk ci Sénégal. dama ne état bi dafa am loo xam ne tey vraiment mi ngi seetaan waa Diamaguène Sicap Mbao te lii nga xam ne mooy suñu problème bu ñu waxee mairie bi ne moom mbiru inondation du prérogative am mais mairie démembrement état la. dafa am part de responsabilité tey pour ànd ak état pour dimbali ko ci xeex inondation mais dañuy bàyyi ba nit ñu nekk ci ay jafe-jafe ñuy door a wër di sonal nit ñi dañoo war a jël seen matuwaay yi indi sapeur pompier le plus rapidement ñu génne ndox mi fi nekk ba pare ñu ut solution définitive parce que tey ay solution provisoire dañ ci sonn at bu nekk pompage ak bu nekk pompage jusqu'à quand ñu dem ca jam ñaajo ñoom it euh, ndox ma daal na riir wutali ji seen kër bi yoon nag askan wi nee nañu dara yóbbewu leen ko lu dul ab usine boo xamante ni ñu nga fay tabax euh, kon loolu moo daal di euh, fatt yoon wi nga xam ne nii fara ndox mi waroon na aw daal di riir wutali ji seen ay kër askan wi nag nee nañu fu mu toll nii mbir yi kon sonn nañu ci tax nag ba daal nañu dànkaafu njiit yi wax ne daal faw ñu kon daal di jóg ci lu nu mel laata muy ëppi loxo ñu teewlu yenn ci ay yi nga xam te ni Najib Sagna taataanee na ko fa. bon te ci suba on a été victime d'une inondation ndox mi envoyé suñu néegi yi matelas yi yàqu bagages yi yëpp yàqu armoire yi ak yére yi ak ceeb bi ak yooyu yëpp <clears throat> ciment stock ciment yi ñu defoon ci kër yi lépp yàqu livre yi xale yeeg jànge tout mais yaakaar naa ne li ko indi mooy dañu dend ak dañu land ñaari usine usines yooyu nag euh, aussi dend benn canal d'évacuation de l'eau usines yi xëy def ay aménagement euh, daanaka euh, wàññi yoonu ndox mi li ëppoon nag ci ndox mi ñëw tey dugg suñu kër yi depuis quatre heures du matin ñëpp yeewu ci tiitaange bon ki ba euh, ki doon wax sans chef saisir na les autorités notamment le préfet les services de l'environnement par des correspondances écrites boobu ba léegi amuñ solution te lii bu continuer aussi c'est la catastrophe il y a pas eu mort d'homme c'est vrai mais ya y a des dégâts matériels qui touchent même ci dundu nit ñi et cetera ñu doon ñaan à partir du président de la république jaarale ko de ministre de l'urbanisme de cadastre ak le préfet ñu ñëw sur le terrain parce que teggaguñ fi seen tànk ñoo constaté de visu ñoo xool les dégâts et au besoin assister les population parce que actuellement on est démunis. kenn nelawul kenn tarul dara dañoo indoone ci ci ndox mi ndox mi daf ñoo sonal yàqal ñu suñu matériel yàqu na suñu dund yi yàqu na kenn talul taal añ kenn talul ndekki kenn talul dara suñu bagage yëpp dafa yàqu suñu matériel yi. ñuy woote ak wàllu lillahi wa rasulihi nañu pari si naan dimbali ak ku mën a àndal ba lii saafara wu ndax sonn nañ lii kat ba kenn xaj na ci. Oh! lii bu ñu yee guddi amuñu fu ñu jaar génn suñu kër yi bu ñu ndox mi ubbee xale yi dañuy dee. dañoo sonn. Sapatdouba moom ñetti kër daal nañu fa màbb gannaaw ba mu tawee taw bu metti ki nga xamte te nag moom mooy maire commune bu kon Patte d'Oie dem ca fii di Grand Médine kon fa ca Grand Médine fa la kër yi kon daal di màbbee waaye nag daal am ràpp ci ba mu fa ñëwee ndax askan wi daal nañu ko fa yuuxoo ba mu daal di delluwaat uh, kii di Bada Diop uh, moom la kon Bada Diop lay uh, wuyoo moom mooy di maire bi Moussa Sène di dikkaat ci lu nu mel. ci ay yuuxu yu ko bett la waa Xamadine daal di teexu ki nga xamante ni moo di Banda Diop te nekk seen maire ginnaaw bu mu leen seetsee ci taw gi am niki ci suba ñoom nag meex ba fuutu la ñu def ndax gis nañ ni inondation yi yàgg na lool. calvaire bi ñun ñu ngi koy dund presque ça fait ren moo war a nekk neuf ans parce que chaque année inondation yi day yokk te à chaque événement de l'hivernage que mu jege gis nañu dañuy jéem a def ay tuuti réflexion mais du am aboutissement wala du am benn liggéey boo xam ne que dana àgg. te cause bi mooy su tawee ndox tali bu bees bi day defaat retour kon ku ñu régleel problème tali bees mooy dimbali nga ñu ngi ci inondation ndax affaire bi doon na loo xamante ne causé nañu problème boo xamante ne kenn mënul xam fu mu toll nga jaar si territoire sax problème la te vraiment problème bi yàgg na fi lool ñu ngi koy dund sax fait des années des années. dem na sax ba taw bi am ñetti kër yi nga xamante ni suuxat na leen foofe ca Grand Médine. depuis ce matin dañoo pour ñëw soutenir suñu mbokk yi xam ne nii naqar bi ak tiis bi ñoom la dal gis ngeen bi ko gisee soo ba fóot lépp lu ñu ci soutien matériel comme moral dimbale leen. ak canalisation bi nag bokk na ci li ñuy jàmbat ba tax mënuñoo nelaw mënuñoo yendoor. ñun ay assainissement yu baax lañ bëgg. canalisation yi nga xamante ni ancien maire bi defoon na ko fi waaw canal demul dikul fi mu tali bi euh, bu ngeen amee seetlu chaque deux trois semaines ndox mi day taa fi même bu dul nawet du dara. ay ndoxu foos yoo xam ne kenn xamul kenn mënu la ko expliquer. gilet askan faritier Croix Médina ñoom nag ñu ngi woo autorité yi ñu jàppale leen yemu fa ñiy sëpp seen mer ki nga xamante ni moo di seen maire Banda Diop. ñun dañoo soxla maire woo xam ne nii day nekk suñu côté jafe-jafe bu ñu am moom mooy njëkk ñëw. maire bi fi nekkoon bu ñu nee toq taw indi na pompam pomp ndox bi yëpp. mais nan la maire yi mën a amee fulay évacuer ndoxam mu génn ba 26. nekk ci canal bi mu teg ko ci tali bees bi ñun ñu mel ne ñu amul maire wala ñu amul ñu ñu taxawal ñu ñu xeexal état bi laay wax li nga xamante ne moom moo leen war ñu def ko sinon population bi ay jeunes lañu bu ñu jegee fii mun na dem ba ëpp loxo. foofee ca Grand Médine daanaka activité yëpp ñoo taxaw ndax taw yile ñu gis ni rek ay yoon yi nga xamante ni kenn mënu ko xuus pour jaax liggéey yi waande yemu fa ak ay kër yi nga xamante ni taw bi moo leen mu ci nangu. ndox mi riir wutali ji kër yi wala koñ yi fees fa del nag dara waralu ko du la kondir yi nga xam ni defar nañu ko fii ba léegi kon kenn kon xoolaatu ko fu mu ne nii nag màggetaay bi moom moo tax askan wi di dund lu ni mel di kàdduy géomètre topographe bi di Ibrahima Anne moom daal dina xam ne daal jot na njiit yi tamit daal di uh, kon xalaat seen tànku tubéy ci wàll wi uh, fexe ba indi leneen yu yees ndax askan wi ñu ngi gën di yokku Ibrahima Anne géomètre topographe moom la ñuy teewlu ay kàddu dama jokkoon ak Khady Sylla Dakar waxtu ne nit ñaa ngi wut ay terrain di si dëkk dëkk bi nga xam moom la ñuy dëkk day gën a avancé parce que ni fiy juddoo danoo bëri. 1960 boo xoolee ay kër yu suufee la ñu yore woon. te bu nekk dafa daan am lu man fukki nit fukki nit ak juróom yooyu ndox yooyu ñu daan jël doon ko déverser ak réseau bi nga xamante ni moom lañ dimensionné dafa méngoon ak moom mais tey boo xoolee euh, réseau bi nga xamante ni moo fi nekk. ndox yi muy jël fépp foo amoon kër boo xamante ni këru étage la wala benn étage tey jii dañ ko toj dafa ay immeuble dix étage maanaam bu fekkoon fukki nit wala ñaar fukki nit ñoo dëkkoon si këru suuf tey jii nga am immeuble boo xamante ni fukki étage la maanaam di nga jël ñaar fukki yoon nit ñi nga xamante ni ñooy sotti ndox si kii bi. bu njëkk ba bu nga xamante ni dafa amoon foo xamante ni ay suuf la suuf si dafa daan jël. mais tey dëkkuwaay yi dem na foo xamante ni yenn yi amatul trottoir foo xamante ni ndox bu tawee dina fa dina dugg si biir suuf si dañ ko dañ ko pavé maanaam si trottoir yi euh, boo xoolee tali bi euh, à force que nit ñi di dëkk il faut que ñu defal leen tali tali bi fa mu nekk suuf la nekkoon bu njëkk dafa daan jël ndox mais léegi tali yooyu léegi fa mu nekk ndox dootu fa duggati am na ay yi nga xamante ni lu mu néew néew desoon na muy zone de captage muy foire ak yenn zone yi foofu ni mu daan jëlee ndox doon na am lu mu doon wàññi mais léegi comme dañ ko def dëkkuwaay amatul de ce fait que ndox yi bu amatul fu mu jëm day dajaloo bu dajaloo nag te préparé wuloo fi nga xam foofu moom lay dugg bu boobaa day am problème. dañ war a définir véritable politique d'assainissement et véritable politique assainissement da koy def priorité am na yoo xamante yaa ngi si dugal xaalis nga bàyyi loolu yëpp ñëw dugal ko si assainissement pour régler problème mu problème mu nit sa Kaolack nag euh, ay euh, koñ yu bëri ndox mi euh, daal dafa fees dell askan wi gis ne daal dara waralu ko dul bassin de rétention bi nga xam te ni ñu ngi ko fay defar pareegul tax nag ba ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi nag daan nañu fa jàmmaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi suñu naataangoo Xasan Ba lañ ci àndal. Diallo ay grenade lacrymogène tàkkee nu ne ci quartier yi di Kanda ak Ndar gu ndaw gannaaw bi fi taw biig bi ba ci suba wàccee ndox mu bari quartier yooyu yëpp ñoom ñoo tëmb ñoom nag askan wi fa dëkkee gis ni li ko waral mooy ab bassin de rétention bañ fay defar moo fàtt ndox mi ñu dem bëgg a toj bassin bi ngir xàllal yoon ndox mi ak baare route nationale bi waral takku der yi ne leen du ci dal ñoom askan wi di ñëwaat ci ndox mi yum leen yóbbee xoolal suñ tàmbalee ba tey kenn nelawut tous les man nag tous les réseaux Kaolack ñun ñëpp kenn nelawul ak suñ doom yi suñ ndab yaa nga nee suñ man laa yaa nga nee amuñ sax fuñ toogee añ nii ñuy waxee yow ni trois heures nii ñu fuñ daañ al bassin bi nag moo ñu ko yóbbee bassin bi dañ ko defar ba pare fatt ko fatt biñ ko fatt nag xale yu koñ bi xam nañ ne ñoom nelawuñu ak seen ak njaboot ak seen i jabar léegi ñu jéngu nag génn na dañuy sekkar ñi bassin bi ñu ooyi ay alkaati alkaati yi ñëw di sànni ay kirmeles xale yi di xam fii dàq xale yu góor yi fi ni nii ñoom bu ñu amee tëdd nelaw ñun amuñ fuñ tëdd nelaw kër yëpp a ngi fees dell dell dell sonn nañ torop torop bésab tey jii sonn nañ. ñoom ñi nga xamante ni jaax na nañ lool nee nañ guleet li ni mel daal di fi am te liggéeyu bassin bi rek moom moo ko waral. waxuma ñu ne suñu bàyyi fi lañ juddoo lii musul am lii musu fi am. c'est la première fois mu am fi li ko waral lii nii lii ñëw du bassin lii du bassin laa wax bassin ngay gas mu am ndox ndox mu ñëwee su ñëwee jàll fa mais lii du bassin dañoo ñëw yow bassin boo xam da nga ñëw fàtte yow yow yi nga fàtte ko fi ndox mi war a jaar yow nga ko ñu amul fi ñu dem ndox mi day dugg ci dugg ci biir néegi a daj dañoo fàtte lii du bassin dañ ndox mi dem mosu fa am lii moo tax lii am fi mais li ñu dëmale waay dara waralu ko lu may bassin la xaw ma bassin moom rek moo ko waral yàq nañ suñ néeg yaa ngi ni fees dell ak ndox suñ lal yaa ngi fees dell ak ndox amuñu tey fuñ tëdd ak suñ njaboot gi damana ne lii métti na ñoom bu ñu amee état secrétariat di ci tëdd yàlla moo leen ko jagleel mais ñun ñii ñu yàlla jagleel nañ ñu ko askan yu dëkkee ci quartier yooyu nag fanaan nañu tànk ndox xëyee jàmmaarlook takk der yi ba mu ca asamaan si sóobaat jëflante gi gën a métti ci fàttali yeneen quartier yu mel ni xaaxoom benn wàll ci Bongara ak yeneen quartier yu bëri ñoom it mbënn mi laal na leen loolu Kaolack Alhassane Ba Yaya Gissé Walf Alxasan Ba jamono yi newet taw bi bari na fu mu ne nag ndox mi fees ci quartier yi ñi nga xam ne ñoom ñooy tas simaan yi di ci profité bu baax ndax nag seen njëgu paas gi dañu ko daal di nag yokk gis ne daal yoon yi dafa métti te naqar yi faaw nag ñu def lu ni mel jamono jooju ñi di clients yi gis ne daal prétexte la rek bu ñu teg ngir daal di yokk paas yi waaye nag doonul loo xamante ni seen wareef la kii di Mame Khady Diéry Fall def ci ab reportage nawet bu jotee muy faral di doon occasion ci ñi lee di taximaan yi ngir ñuy yokk paas bi mu doon loo xamante ne bi seeni client rafetlu wuñ ko. loolu day wone rek façon dundin bi ñuy dund fii ci Sénégal cest à dëkk ba nga xam ne ku ci nekk loo neex nga def parce que boo xoolee dimanche passé par exemple fi match basket bi jeexee muy taw mais taximaan sur deux kilomètres les gens te demandent ay quatre mille francs trois mille cinq cent francs clando yi sax yi doon def cent deux cent par mille francs ba moom lañ doon wax par personne donc c'est une chose ba xam ne je crois que les autorités war nañ ci jël des mesures mais d'abord les défenseurs des consommateurs les associations qui sont là je crois que war nañu am leen la xam ne war nañ ko ci jug def ko ci quoi. yokkuteeb njëgub transport bi le am na lu ko waral Cheikh Diouf di taximan di ñu ko wax. fii ak wil ay 2000 francs 1500 mais loolu léegi moom il faut ñu def ko 2500 ak 3000 surtout maa nawet bi nii parce tey bu fekkee damay teggi di éviter ay ndox ay roq di dugg ay roq pour man laa yóbbu ville bokkul ak su ma defee tout droit yóbbu la ville mënul nekk benn Waly Faye moom it di beneen ab taximaan di àddu jëmale si mbir mi bu tawee yoon bi day jafe quoi parfois da ngay yëpp mais pour nga yóbbu client fu ne ngay jaar parce que yoon bi moom day am ndox pare embouteillage beeg loolu loolu rek la de course boo war a yebee 2000 parce que 2500 nga koy yebee rek boo war a yebee 3000 aussi parce que 3500 teg bi météo météo boobu te loolu lépp li ko waral mooy ndox mi xew lu ne ak lu demee lu nekk le intact maanaam prix bi la yóbbu bi nga xamante moo la war yóbbu géejawaay pas bu tawee rek mu yokk parce que il faut que les gens se nit ñi faaw ñuy déplacé wu mais c'est pas taw na rek dëkk bi jaxasoo ndox mi tooy na yoon xaw na jafe rek ñu war yokk loolu ce n'est parce que dëkk bi ñëpp ñoo ko bokk te ñëpp ay sénégalais lañ. gannaaw bu tawee ba sebet file ci Dakar dafay faral di métti ci population yi taximaan yi ñu si bëri dañuy yokk prix wu transport bi muy loo xam ne ñi lee di seeni ay clients ñoo koy yëg bu baax donte sax faaw ñu fay ko ngir mën a amal seeni dem ak noonu la ñuy jaar dem ba biti réew xooli ji dafa xew ñu àndi càkk Fatou Bintou Diouf ñu dooree xibaaru bi ci réew yi ca Russie njiital kujje politique ba ca Kremlin Alexei naval ni ki tey jii nag bàyyi nañ ko mu delluwaat këram gannaaw fanweeri fan ya nga xam ne nag euh, caabi da ko féete woon gannaaw ci ay manifestation ya nga xam ne jiite woon na ko foofee ca Moscou bu ñu sukkandikoo nag ci ka yor kàdduwam njiital kujje politique bi waaye tamit blogueur boo xam ne bëri la muy xarab nguur gi moom gannaaw ba mu génnee ci prison ba janoon nag taskatu xibaar yi lam leen moo di fitnaak roqatal ba ñuy def doomi aadama yi nga xam ne nag dañuy xeexal réew mi ci ay manifestation moom mee nag dina woyal liggéey bi ndax lenn rek mënul tax mu deltu ak gannaaw ci li nga xam ne nag moom moo di ay mbébétam moom Alexei Navalny ci fàttaleku ñu ngi ko jàppoon ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juillet foofee ca Moscou gannaaw nag ba mu daan dox ay soxlaam ca mbedd ba waaye tamit la gënoon waral rek ñu jàpp ko mooy rek ñu gàntal ya nga xam ñetti fan ci weeru sattumbar buñ fa jógee ñu jubali ca Brésil lakk su métti sa nga xam ne nag mu ngay woy di law rek ci yenn ci ay gox foofe ca Amazonie waral kuréel bii di organisation des nations unies ak ki nga xam ne mooy njiita réew bu France ña ngay sàkku ci njiita réew bu Brésil Bolsonaro mu jóg ci li mel ganaar rek mbir li ni mel di ëppi loxo moom Bolsonaro nag ci jumtukaay yu xarale yi moom ma ngay duut baaraamu tuuma naataangawoom bii di Emmanuel Macron ndax jàpp na ni nag moom Emmanuel Macron dafay dugal làmmiñam fa nga xam ne nag euh, bokkul ndax lay xew ci Brésil yoonam euh, nekku si waaye nag moom li ni mel moom dana si jóg ndax du nangu benn yoon keneen koo xam ne nag am nga la la doy si sa réew ngay jébbal rek ay kàddu yu jëm euh, ci la ngay xam ne moom moo ko jiite si jamono ji ca Brésil li ñu jeexalee xibaaru bi ci réew yi ca Italie parti politique ya nga xam ne nag ñoom ñooy formation politique yi njiit réew bi di Sergio Mattarella nag dankaafu na leen nag jox leen fii ak semaine bi di ñëw rek ab diir boo xam ne rek may na leen ngir ñu mën a nag taxawal ab gouvernement bu yees gannaaw nag ba nga xam ne si ñaari fan ya ñu weesu coalition ba nga xam ne nag ñi taxawal ñu tippee leen mouvement cinq étoiles ñoom dañoo lajj ca la nga xam ne nag moom lañ leen dénkoon waaye njiit réew di matériel Mattarella nag ne euh, bile yoon nag bëgg nañu fexe ba taxawal nag ak gouvernement bu yées ndax si jamono ji réew bu Italie dafay jànkonteel ak crise politique su métti métti faw nag mu jot ñu taxawal nag ak gouvernement ba nga xam ne nag dana tax réew bu Italie soobuwaat xool nag nan lay def bu suqali lu bëri euh, ci biir réewam. Fatoumata Diouf ñu yegsi si ponk bu mujj bi ci xibaar yi di ci yi ki ñu koy faram-fàcceel di Abdoulaye Bopp dal leen ak jàmm waaye PDS ak jafe-jafeem doon lu yéen kaay yëpp xeendoo tey Walf Quotidien di ñu xamal ne dàq Omar Sarr ci parti gi ni mel ca lañ jëm génn cabinet te bu Omar Sarr kii di El Hadji Amadou Sall mun na caa bokk Babacar Gaye mun na caa bokk Ali Nar Ndiaye ba ci Cheikh Tidiane Seck ak ñeneen ak ñeneen mun nañ caa bokk Walf Quotidien ne ñooñee fegook Omar Sarr te fippu ci PDS tey jii la ñu fas yéene jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngir gënde askan wi ci ngannaay yi ñu fas yéene xeexee maanaam matuwaay ya ñu jël ngir gàntal ay pexe Abdoulaye Wade yéen a kabi di Le Quotidien jafe-jafe tàbbi na ci partem moom moom Abdoulaye gannaaw yeesal yamu indi yàggut ci secrétariat national bu PDS doon lu waral ñu bari tàmbalee fippu ndax gisatuñ ci seen bopp ku mel ni Abdoul Aziz Diop ak Maître El ak ñeneen ak ñeneen ba ci Omar Sarr fas yéene nañu jàkkaarloog taskatu xibaar yi tey Le Quotidien ñaari conférence de presse lay doon ndax ñi feggook Abdoulaye Wade te jege lool Karim Wade ñooñee daañu janoog taskatu xibaar yi ngir wax li xew yéene kaab li ñu Macky Sall mi falu tey ci boppu réew mi taxal APR ba ci Modou Diagne Fada ak Souleymane Ndéné ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp PDS la ñu kenn ku ne samp sa parti réew mi quotidien doon lu sooke tey am lu juddu bees ci PDS di comité d'initiative pour la refondation du PDS maanaam tabaxaat lii di PDS doon lu yitteel lool Omar Sarr ak ñamu àndal réew mi quotidien ci waxtu wi le ña ngay waajal coup d'état maanaam ña ngay nas ay pexe ngir jàmmarloog Abdoulaye Wade na bi tàmbale na ci diggante derbi lay doon ci diggante PDS ak génération di concret kenn ku ne ci ñoom ci bëccëgu tey ji di nga ci jàkkaarloog taskatu xibaar yi Dakar Times gis ne neexul ba neexul waaye parti gi ni xar na ñaar critique ne am na ñu jóg taxaw ci PDS ne àndatuñu ak doxalinu Abdoulaye Wade waral ña ngay nas ay pexe ngir mun a gantal ay pexe Abdoulaye Wade ci parti gi ni mel Omar Sarr ak ay naataangoom daal di woote maanaam tabaxaat PDS yee salaat ko bu dee yéen kaabidi Les Échos xëy di ñu yëggee tey la tukkee ci ndajeeb cadre karimis yi doon xool ka war a wutu kii di Cheikh Seck ak ci boppu fédération nationale des libéraux seen ndaje ma ci fantasiro la mujjee déggoo amu ca moo tax ñu fabaat lépp jébal ko Abdoulaye Wade ngir mu dogal ci jafe-jafe yi ni mel 24 ne taw démb jural na jafe-jafe askan wi lu ko dalee Mbambilor Sokone Nioro Kanda Kaolack Bakel ak Kaffrine gox yi ni mel ña ca biir ndox ma yéen a cabinet la ca gën a doy waar ñaar ci ay doomi aadama ñoo faatu ca Mbambilor gannaaw bu ñu labee ca ndox ma ab soxnaa ngi ni courant moo ko mas ca Kaolack la ñu def ña ngay laaj ndox ba ay yoon yu yàqu ca diggante Sokone ak Nioro Vox Populi ne Sénégal a ngoog soobu na ci mbënd waaye fekk fi gouvernement bi wakansi na ndox mi def musiba ca Mbambilor ñaar ci ay tuut tànk ñoo fa faatu Pape Diop njiital bokk gis-gis gis na ci waxtu wile nguur gi warutoon a dem vacances ndax fu réew mi tolloog jafe-jafeem askan waa ngi dund coono gu metti ci ndox mi te gis ñu ku leen wàllu la tribune li xewlu doy waar la ne xoolal ma capital bi daanaka askan wi mënatuñoo doxi seen soxla ndax ndox bu dee ca Kaffrine ay quartier yu bari ña nga ca biir ndox ma yéen a kaabili source ané mangoog ma nga ca Biarritz ma nga ca France di noppalu askan wi di xuus ndax ñàkk am ku leen taxawu yéen kabi di la Soleil ne taw guddib àllarba jàpp alxamis ndox mu bëree bëri moo ci wàcc waaye yàq na lu bëri Dakar mi yewoo coono démb am ñu amatul dëkkuwaay ca Kaolack doon ay sinistré yéen kabi di direct info ne ca Kaolack askan wa fa yewoo ne bëggatuñ faa gis meeru gox ba di Mariama Sarr ma ñu ne def leen a seetaan ak jafe-jafe ya ñuy dund bu jéemul lenn ca Kaolack généka bi di l'observateur xëy ñu dégtal dossier traque des biens mal acquis ma ñu ne sulleekuwaat na CREI ne ci tànk gëstu Abdoulaye Baldé gëstu Samuel Sarr Madické Niang ba ci Ousmane Ngom ngir xool seen moomeel ndax lew naam lewut bu dee of nag moom ba ngay gëstu Mame Mbaye Niang ci coal ñaar fukki milliards ak juróom-ñeent bu Prodac bu ñu sukkandikoo ci laas généka bi di ne à la leen a fàtteeg seeni coono bu ñu sukkandikoo ci njiital leeral askan yu Omar mi gis ne Mamadou Sy na IPRES ne jot nañu jëlee ko fa ñu cay dagaan ay signature libération ne astut musiba am ca Mboro ca résidence Cheikh Béthio Thioune ga ne naroon a dox ci diggante ay taalibe Serigne Saliou Thioune ak ay taalibe Soxna Ayda yéene cabinet ci googule jàppante jot nañ ca teg loxo lu tolloog juróom-benn cantakuun yu jege Soxna Ayda seen dossier ma nga ca loxoy procureur bu Thiès le témoin di ñu dektal ci commission bu dialogue politique bu général Mamadou Niang jiite jot nañ ca déggoo mu ñeel bulletin unique ci élection ci diggante béykat ya fa ne laata match gi ni di jeex ca la ba di Souleymane Ba daa di weq défenseur ba di Meta Sidibé woon ci ñaar fukkat ak ñaar ca faatu ci saasi l'observateur ne bile match béykat ya ne ca Faya ca département bu Goudiri ci faat bakkan la mujjee ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Abdoulaye Bopp jaajafal ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañu ci xibaar yi ba mu yemb jaajëfal nañ leen ci ànd bu rafet bi fii ci Walf TV leerub jamono baatub ñi amul baat xam leen ne seen kóolte mooy lu ñuy sagal saa su nekk di ñaan borom bi nga xam ne dara teew ko mu aar ñu làq ñu fa yaax yeggul ñu yendoog jàmm ba suba jàmm incha allah